fait lii Ba d'un côté. Mm -hmm. euh, l'opposition de l'autre. du du metti. ci Amadou Ba du metti lu baax parce que <laughs> am naa ak relation xalifa Sall xam <laughs> na xam naa ni euh, mën naa bañ a metti foofu xëy na am naa rela am na relation ak waa PDS mën na bañ a metti foofu président Macky Sall am na relation ak Idriss Seck mën naa bañ a metti foofu. moo tax may naan ñii mer génn tamit. mais l'opposition radicale. Euh, versus versus Yewwi c'est un combat mais élection yi nu muy taxawee nii euh, deuxième tour la gën a jege te deuxième tour nag moo tax bu kenn saaga kenn quoi parce que wóorul ndax foofu da ngay soxla benn waa voix wala ñaari voix mais moom xëy na li mu nekk ay am ay responsabilités au temps du PDS xëy na dina ko tax la connexion ne va pas être compliquée et puis du nit koo xamante ni. voilà nekkul ci xeex kenn xamul ko ci xeex voilà donc loolu euh, bonus lay doon ci moom. bon comme ses premières années de militantisme PS la ko defee euh, donc loolu aussi ça peut l'aider avec Khalifa Sall bon parce que moom laa dégg mu wax la ses relations avec Khalifa Sall ça peut moo tax pour man euh, ñi ko ñi ànd ak moom buñ ko bëggee jàppale bu ñu ko wutal ay noon même ku mer nañ nañ nañ ko nañ nañ naxanteeg moom parce que élection yooyu am deuxième tour bul xeeb